yaa jongante alxuraanul karim bi ñu doon amal ci àddina bi yëpp dañ ko doon amalee ci réewum Dubaay sénégalais bi nga xam ne moom moo jël deuxième di El Hadji Cheikh Dia dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba ak yeneen ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi ci concours national bi nga xam ne ko moom la doon amal mu jëm ci jongante alxuraanul karim te Moustapha Touré jiitu ci topp ci Ibrahima Khalil Lo ak Moustapha Dieng ak Serigne Modou Mbacke ñoom ñëpp dëkk ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba jàngee fi alxuraanul karim ñoom ñëpp ànd seeni waajur ñu gàttanu leen fii ci Touba Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif yi nga xam ne réewum Sénégal def na ko ci jongante alxuraanul karim ci àddina bi waaye ci taxawaayu daara yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Touba Mbacke ci liggéey bu am solo bi ne def nañ ko ba jongante xam ne na ci biir réew mi dëkk bu sell bi di Touba ràññeeku ci a baax Serigne Mountakha Mbacke moom dalal leen fii ci résidence Khadim Rasoul ci altine ji dëppoog le avril ci teewaayu kilifa yu tokk lool ñu amal fi jotaay bu yaatu boo xam ni yëkkati nañ fa alxuraanul karim amal fay taalif waaye am kàddu yi am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fi. bismillahi rahmaani rahim ma jóg béral cant gu siiw ndam yi nu xam du ndam lu néew nan àndandoog sun mag réew sargal si doomi daara yi jam nañu njog la ñëpp diir am nañu way wu dootu réer alhamdulilahi alqadir ndam ñëw na doomi daara yi yàlla nu sédde alxuraan nun lañu may naa si balaan nan maase kañ xalel yi daan daanaan ni doomi daara yi jël nañu ndam la wan Dubaay ak Abidjan Ndakaaru Njaay na ñëpp jóg nu maase waay sargal jaloore daara yi te alxuraan ji ay ndamam deful lu tuuti ci ñoñam ñëpp ko diir te noo ko jam jaaraama doomi daara yi daara sigil na Sénégal tey jii ci bépp capital waaye réew mi war nañoo fulaal ngir yàlla doomi daara yi jaloore am nañuy ñuy ñaloor jaloore yéen am jaloor wallaahi yéen a sell mboor jaloore yaa ngi ci daara yi ku leen di suuru daa wérul ku leen di dëkk daa wérul àddina yàgg naa cëral kàngam yi jiite daara yi sunuy xale lay dem biti réew sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa seeni géew jël ndam la indi dal siiw kenn mën la mabbu daara yi sunuy xale yi dem biti lëmbe ko toj fa dal géew jël ndam ya indi daal di siiw kenn mën la màbbu daara yi alaaji seex ja toj dubaay mokkal ga yéem na yooyu gaay gone gu ndaw ci biiri baay jël ndam andil ko daara yi seex fallu ñas albaraka ndam lañ tegoon ci afrika yaa ko cas du kii du kaa andil ko réew meeg daara yi waa c 3 loola ndam seex fallu sànqe moo ko jam mbindam ma yéem na ay kemam taaral na daayi daara yi waa sene kooña bantaree wërngal ba Moustapha Touré moo gàddu ndam la maa ngi ree kuy jiima noonu daara yi kon ndam yi teew ak ndam ya wéy yeyoo nañoo kañ ak a way te sant ñiy jël seeni may di xëpp doomi daara yi la footballeur yi doon yeyoo la dongo daara yi yeyoo mbaa lu ko moy danañ la yoo ndam-ndam la doomi daara yi ab kub gënul kaamil fi nun jogante ji jogante nañ te jiitu nan na ngeen defaat na ngeen defoon état na geesu daara yi terrain yu yaay yi jombu leen millions yu rong yi jombu pale ba laane jombuleel dalal fa doomi daara yi raaya ngëñal yi ñoo ko jël jaaraama nee leen ko njël bur yàlla moo fasoo añal jàmbaar doomi daara yi jiitu ngeen maleeg niseer dubaay di leen damoo ba keer yéen a ngi ca njoboxtal ya goor réew yëpp a ñeesun daara yi seen ndam yi tax na xol yi neex tey daara bég na ñëpp feex may ngeen nu mbég mu déwti jeex mbég maa ngi doomi daara yi Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na jëm fi yow yal na sa fan wi lawa law yaay wéeru waayu daara yi waxaat ko Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na ñëw fi yow yal na sa fan wi lawa law yaay wéeru waayu daara yi ban la amee ba fii tol ndam lun fi yootu dal ko jël sa fan wi yal na nañ ko ful ngay jiite dame daara yi faral taxaw Ahmadou Baas te sëlmalaat ci xayru naas te sant Cheikh Bamba mi daas sam xel ci sargal daara yi allahumma salli allah kay ci daara mu li mu mu laaj waaw waaw li mu laaj rëy na lool. loolu daal war nañ ko xam ne ba ñëpp dégg dégg ko. wax nga nii waaw waaye yoon bi ñëpp xam ko. Mm-hmm. alhamdulilah daa wax ne rek. waaw lii mu demee nii. waaw lii nga wax ne ak lépp. waaw day lu ñu war a ñëpp war a xam. Mm-hmm. laaj na émission laaj na tel laaj na lépp. Mm-hmm. bañ xamee ko nii. bañ xamee ko ba mu leer ñëpp. incha allah ñaari aay rek si ñëpp. waaw incha allah boobaa day soññ ñëpp. day soññ ñëpp waaw day soññ ñëpp. incha allah moom it moo demoon Dubaï. moo demoon Dubaï ma jël ñaareel bi ci àdduna sëpp. Eh,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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas saajidiin wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin sadaqallaahul aziim. alhamdulilah. dégg ngeen ko mu ne sëriñ bi bég na. alhamdulilah. waaw fi sëriñ bi tegoon alxuraan kenn teg ko fi alhamdulilah moo tax lii lépp ndawama moo tax lii lépp ndawama <laughs> te it incha ndam yi kanam rek la jëm incha ndam yi kanam rek la jëm jiitu fa tabaarakallah yàlla def barke ci ñoom ñii ak njaboot gi ñëpp bañ mën leen a gën a xiir ci boppam. gën leen a xiir ci diini. ci lislaam gën leen a ci Sëñ gën leen a sàmm. gën leen a wéral yàgg leen lool. ñu am fan fan gudd gudd gudd gudd. wànd ak kàttan. buñ mën a sax dak ci liggéey liggéeyal alxuraan. liggéey ci liggéey ci alxuraan. ci sëriñ ndax euh, sëñ bi fa mu teg kenn teg ko fa waaw fa mu ko àggale kenn xam ko kenn àggale ko kon nag alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant santaat suñu borom. ñu booleeg sëriñ bi. di gën a sant sëriñ bi. ci ci ci ci ci ci moom moo nga lépp tey ak ëllëg. ci nag ci ndam yu yees yi peq. nu am. waaw tey lépp pàggute fa lépp pàggute fa mu juba boromam la. kon loolu ndam luy tàmbali rek la waaye incha allah kanam rek la jëm kon jërë ngeen jëf noo ngi sant waajur yi seen i waajur noo ngi sant ñi leen doon taxaw di leen jàngal noo ngi leen sant ñoom ñii itam ndax diggante bii ñu am li lu ne xaj na lu ñu xajoon na ci sabat bu ne xajoon na ci waaw kon kon kon loolu li di suñu boom toog toog leen la waaye nag am nañ ci cër yàlla jox na leen ci cër mm-hmm. waaw ndax ndax nañu nañu nañ nañu jóge woon eh, jublu ko ni taxaw ko ni suñu bopp def ci seen bopp def yitte ju toll na jigéen ji ñu taf ba am ci ndam lii ñu am loolu am nañ ci yàlla may jox nañ leen ci cër kon man moom kon man dañoo sant yàlla bu baax a baax sant leen sëriñ Tuubaa bu baax a baax sant seen i waajur sant ñi leen doon jàngal sant leen gërëm leen ñoom ci seen bopp noo ngi sant sëñ Ahmadou Bass itam ci eh, eh, tënk gi mu tënk ndam lu rëy lii nu am Euh, di ñaan itam nañ nañ nañ ko ubbil euh, jotlikaay yi mm-hmm. yëglikaay yi mm-hmm. euh, yeetekaay yi mm-hmm. ubbil ko bunt. may eh, may may ko ci. Hmm. Eh, may ko ci ndigal. Ah, ba mën a ba mën a ba ñu ba xasida ah, eh, ko gën a dégg. Ah, gën a xam fu mu jëm gën a xam lu mu doon. gën gën ndax gën a mën a sant. waaw ci ci ci ci ndam li rëy di ñu am. ndam li waaw ndam li seen tubaay itam hmm. moom alhamdulilah rabbil alamin tawfiq Sénégal ndax réew yi bari na lool te fii la feeñ kon nag Sénégal gépp ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk ndam li waaw te it ñoom Sénégal gépp ñoo war a sant sant sëñ sunu borom bu baax seen seen seen sëñ Tuuba seen seen Ahmad Bamba mi mu leen mi mu leen séddee réew yi bari na lool waaye fii la fii la fii la waaw te te te te daañ dem ba xam ne seen seen seen Ahmad Bamba euh, li ma li ma ci xam ak li ci gëm. mën ma ko wax yéewu ma wax sama lam li ma ci xam ak li ma ko du ma du